jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci ñaning ñaning nag bu ñu ko waxee tey xel day dem ci promoteur bi nga xamante ne bu ñu nee l'homme des grands événements sax xel day dem ci sëñ Fallou Luc Nicolaï moom moo ñu fi dalal woo ñu fi teg 3 millions litres traditionnel euh, ndaanaan yu bari ñu leen di séntu tey parce que du Ama Balde fii ci Nianing jar na lu nekk rawatina lu rëy li nga xamante ne defal na ko presse bi jëlal leen bis climatisé vraiment ñu déplacé wu ñëw mu dalal ñu euh, bërëb bi nga xamante ne tey fa la presse bi ñëpp dajaloo suñuy naataangoo suñuy xarit su suñuy am di jàmm mooy wane ni ñu ñëpp benn lañ mais dañ koy ñaanal rek bu baax moom sëñ Fallou ko Nicolaï lu mu mën ren bu ne yàlla na ko mën lu ko raw lii nag la ñuy séentu ci ñoom kon dañuy dugg ci biir xool presse bi nan la ñuy fas yéenee toog waajal yegsil sama waaji Adama continuel jërëjëf kaay siyaar naa leen de ayca ayca <laughs> Cheikh Mouhamadou Fadal yaa ngi dallu de sama gars yi maa leen fekk seen léegi de chambre hôtel bi <laughs> munu balaa bàyyi sama waa ji dama laa bëgg borom Dakar Buzz maa ngi laa siyaar de yàlla yàlla nangu ziar. waa sant yàlla julli ci yonent bi di sant Serigne Touba suñu yaakaar tey baalu sénégalais yëpp ak di baalo waa àdduna bi ndax wax dafa sew jiili li fait l'occasion léeg-léeg nga wax sax wax loo xam ne waxuwul nan ko nit ñi jéggal te xam ne sunu yéene mooy wax lu rafet di baalu àdduna bi yëpp ak di ñaan nan nu baal te yàlla def jàmm ci réew bi di rafet lu liggéeyu wasaare di la ñaanal jàmm. tey ñu am kontante bu baax ndax moment bi nga xamante ni làmb euh, sëñ Fallou Luc Nicolaï mu ngi ci ay njàq njàqare wala mu ngi ci ay jafe-jafe làmb bokk nañ ci ñu jóg di ko ñaanal saa su ne ndax suñu njaboot la waaye bi mu génnee gis nga lu rëy li mu defal presse bi woote ñaniñ jëlal leen bis climatisé loolu noonu yëpp ak fi ngeen dalluwaay bi lan nga ci mën a wax. waa sant yàlla di wax nan ma baal ndax danga maa bett danga maa yee dama la sonn di nelaw yow xam nga dangaa bayul mayul kenn jàmm yow moom li ma naan bukkub tibis ku la dàq si gétt bi bu mu nelaw da nga dikkaat di rafetlu li mu def di ñaanal sëñ Fall lim Nicolas yàlla may ko réew si total ci journée bi nit ku baax la di ñaanal promoteur yëpp nag li ko dalee ci ñëpp képp promoteur kuy tëgg rek maa ngi ñaan yàlla li nga sumb yàlla may la ci ndam mais moom li tax ñu koy beral cant mooy wax dëgg jëlee nañu dakaar indi ñu fii teg ñu condition yi baax nag gis nga bi ñu ñëw amuñu problème bi ñëwee itam loosal nañ ci hôtel bu baax di ñaan daal euh, yàlla na ko yàlla wàllu ci bisam yi yàlla taxaw ko te taxaw bépp promoteur boo xam ne investir nga ci xaal ci làmb ji rek te bëgg ci xaaritu nag yàlla nañ ci gis lu kawe sa njoot waaye di ñaanal daal lig ni ko laal lu mu mantan bu déwénee yàlla na mën lu ko raw di ñaanal itam suma xarit bopp muy jéy seen xam nga làmb ji bari na nag ñu baax ñëpp baax Pape Abdou Fall Gaston Mbengue bari nañu waaye jéey seen ak Abdou Lakhat Ndiaye ñoom ñooy ñi jël drapeau tuddee ko Fadel may ñaan yàlla taxaw ko yokk ko l'infatigable laa ko tuddee di nuy Abdou Lakhat Ndiaye borom kàbbu gay di la ñaanal jàmm nag bett nga ma nag mën nga maa bàyyi ma dallu nag waaye fexe nga ba loxoti ma indi ma waaye yàlla yàlla taxaw la may la jàmm te yàlla suturaal la te yokk sa yar. mel ni waaye tey lan ngay séentu ci li traditionnel bi surtout mu teg 3 millions. waa lu doy waar ndax ku xool tey lii mu nar a teg fii ci njëleñ rek boo fi ñëwee dinga xam ne tey ku maroon làmb di nga màndi moom nag li tax ñu tuddee ko promoteur des grands événements nit ñee ko jox ci bis yu mag ci mën bis ci taaral bis ci indi loo xam ne dañuy yaakaar ni kenn mësu koo gis tax moom ma fa wàcc wàcc fi ci baara xam nga dafa bari dafa bari bagage kon tey noonu xaar si ñàng loo xam ne tak image yoo xam ne lu doy waar ndax tey képp ku maroon làmb rek ba pare doo jug julli poche vide xam nga 3 millions ku ko naru daga toog a korte ba tabaski kon yàlla na ko yàlla defal jàmm rek. lu doy waar loo xam ni nit mënu koo xalaat ndax day kenn nee naa ko mooy caatu Falaye Balde di seetlu bu ndaw nee na màgg na mooy koo xam ne yaakaar naa ni bu tàbbee ci làmb lépp lu ne namoon ci Ama Balde tey di nga bëgg. Mhm. jërëjëf Cheikh Mouhamadou dugg ci dugg ci Modou waaw boo xam ne Amani Modou ndax xam nga laa bu daa métti Modou di roi des arènes di koo xam ne bu kib timis la ku ko dàq sa gétt bul ñalaw day dikkaat Cheikh Fallou ñu ko la yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla taxaw la te yokk presse bi jàmm fii daal ñu ngi ci jàmm ñun waaw ah, koy jërëjëf. jëfati. ndeysaan. buur maa lay nuyu bu baax nga nekk njiit ci ñi nga xamante ne ñoo nekk presse en ligne bi tey sëñ Fallou Luc Nicolaï jëlee ñu dakaar indi ñu tey ñaling ban yëg nga ci am ak noo ko gisee. Euh, sama nelaw yi nga yàq ji li ma la ko. waaw mais quand même. sant yàlla d'abord en tout cas di remercier bu baax Cheikh Fallou Luc Nicolaï. Euh, mooy damay revenir chaque jour ci sama euh, même discours mooy que ñun ak ñoom ñun nous sommes que des partenaires bi ñu nekk ay Sénégalais doon ay frères euh, tey Luc a montré le bon exemple <coughs> wane ni que la presse en ligne du ñu ay ennemis du ñu ay concurrents mais ay partenaires am lañu tey ki la ni kaa ñu dem suma làmb yëkkati biche bu baax jox la nga ñëw mu loger la teg la dans de très bonnes conditions jox la restauration ba noppi ne la kaay liggéey kooku buñ ne ku bëgg a yokk làmb la war nañ ko mën a gëm mais quand même c'est pas une première parce que Luc a toujours montré la voie de la citoyenneté euh, le drapeau de la paix defe naa fii la la fekk ci presque vingt ans ou trente ans de conflit entre sénégalais muy ñun ak la Casamance bokk na ci ñi désamorcé bomb ba tey jëlee Abba Diamacoune Senghor ba Casamance xëy indi ko le Léopold Sédar Senghor ci boobu jamono euh, mu nekk koo xam dafa yàgg initier jàmm ak dox jàmm ak di ko wax boole ci di promouvoir tey li mu promouvoir ci ay xale kenn xamul mu toll. kon nga ni combat Ama Baldé Modou Lo la presse à ligne ñoom ñooy nekk à l'honneur loolu defe naa dara gënu ko rëy keroog gis nga seen première face to ba ci seen TV ñu ñi nga xamante ni que ñu ne les animateurs yi nekk sur le web la jiital donc kooku am na ci une considération donc dañu koy ñaanal rek combat bi mu bi mu tëgg yàlla may ko ci ndam te aussi ku reconnaissant la. dafay wax naan souvent buur problème bu ma mën a am presse en bi ñoo ma koy jooyle ak animateur làmb yi donc kooku xam na li ñu boole ak moom euh, dañ ko dinañ ko gunge nag ci bés bi promouvoir ko ba mu neex ndax fii tey ku fi ñëw tey ñaniñ Ama Baldé ak mafia tey fii loolu beneen affaire lay doon te on compte pas s'en arrêter danañ ko gunge ci yeneen défis à relever di lancer appel promoteur yépp di ci jiital la Don King ndax mooy seen mag te ñun bàyyi la ci ñun di la Don King Gaston Xaali Mbenk li may wax rek sànq damay wax ni que lu mës a nekk ñoo ngi ci fu mu gëstoo seen ñu di ko jaarale ci Abdoul Aziz Alé El Amin Pape Abdou Fall Dieye production njaay production Assane Ndiaye production bàyyiwuñu kenn ba ci pap Papa Thialis nañu waxtaan rek temps yi maa ngi gis problème mu Thialis Gaston yooyu yëpp mën na ñàkk làmb milieu la boo xam ne lu jàmm xaju ci lu dul kaf foo ak ree xaju ci donc nañu retrouver wu toujours autour d'une table am na yenn wax yenn mbir xam ne balaa moo yegg sax ci benn niveau bi war nañ ko mën a waxtaanee donc euh, ñun daal la presse en ligne ñoo ngi nii suñu ittee ci làmb ak ci leen lu làmb mooy yokk te wolof Njaay dañu ku yokkul da nga wàññi waaye tey boo xoolee eh, dix ans ci ginnaaw. xam ne la presse liñ ligne a beaucoup joué son rôle ci ci lu bari jàppal nañ fi ay artistes jaay fi ay mbër forger fi ay nit donc li ñuy ñaan rek mooy que ñu jël l'exemple de Cheikh Fall Luc Nicolaï vraiment jox nañu suñu cër ba mu doy wax dëgg yàlla ñoom tamit tey su ko deful woon it dañuy ñëw ak nos maigres moyens pour liggéey si ndax jaral nañu ko. kon donc su ko defee jàppale ñu ngir lu yombal suñu liggéey donc ku soxor du gërëm ab dof du gërëm te jàpp na ne ñaari yëpp daluñu donc dañ koy ñaar rek ci barke Cheikh Mouhamadul Fadala lépp lu mu suma ba ngoon yàlla Cheikh Mouhamadul Fadala dugal loxo ba mu yeggale ko ci ni mu ko bëggee. nga nekk président euh, des des reporters en ligne. tey nga juute kuréel googu tey ñu gis ay promoteur yoo xamante ni ñoo bokk benn kuréel gu ñu bokk di am ay jeexi jaax ci ay problème dat ku mel ni jamaïcain ak Jax production gisaat nañ ko bërki démb ci ku mel ni euh, Gaston ak Pape Thialis est ki war a yoon saasu ne war naa teg yoon. waa xam ma dafa am li ma wax wasaare bërki démb rek loolu laay confirmer waat euh, am toujours. wala ñu xam toujours lan mooy la sens du dialogue et puis promoteurs yi am nañu association mais ñaata association la ñu am tey boo jëlee l' exemple de Nicolas Ligue Nicolas wala ku mel ne Gaston wala ku mel ne Thialis wuñ ci benn association donc bu fekkoon ne que dañu bokk ci benn kuréel conflit d' intérêt boobu du leen sonal ndax tey bu jëli jàppee date ya daal dina xam ne jëli mi kat jàpp naa date wala même bu fekki même boo wax waxee ak mbër sax bu boobaa ñu ci des ñëpp dina nekk au courant te bu boobaa sax ñoom lañu ñu gën a sàmm seeni intérêt mais li waral lii rek mooy bokkuñu ci benn kuréel Pa Abdou Fall am na ñu mu jiital ñoom Jax mu ci benn kuréel Gaston Ligue bokkuñu ak ñoom Thialis te ñu bokk même chose li ñuy def dama wax barki démb nii promoteurs yi tey làmb ñoom ñu ci gën a doon ay victimes tey heure bi waroon na fekk état am benn fonds d'accompagnement wala benn fonds d'aide boo xam ne kat da koy teg table CNG benn six cent millions promoteur bi bu tëggee tële CNG ne ko am cent millions yi yëggle sa làmb boo génnee si recet su ko matee nga fay su ko matulee kat may nañ la délai kat deux ans chaque fin de mois nga ñëw dugal soixante mille ou soixante-dix mille loolu fond la lu ma nekk la donc te ñoom loolu lépp pour ñu am ko foog ñu booloo nekk benn mais bu kii gasee ci kaw kii gas suuf kii waxaale combat ba mu waaj a sotti kii jaar ci kaw tëgg ko te loolu li koy lépp mooy courtier yi làmb dafa am léegi ay courtier ñoo xam ne ñoo naan mbër mi kaay ma lijjanti la combat ci diw su ma ko lijjantee bu la fay temps nga jox ma temps ñëw ci diw na ko tëggal diw ak diw ak diw promoteur diw sax mu ngi ci doon waxaa ah, mais tëgg ko boo ko tëggee day neex ñooñu ñaati dérive la ñu def ci lam ñaati promoteur lañ fi perte loo. tu te rappelles le cas de euh, maanaam le cas de El Hadj Ndiaye bi waroon dox ci Moustapha Gueye la woon bu ma juumul ak Ama Sène ñaata la ci ñàkk ba tey kenn dolloo ko lan moo ko yóbbee ñëwal mën na nekk. moo tax barki dem ma lancé appel moo géet ne ko il est jeune dëgg la il est ambitieux tey bu ñëwee tey jël àllam def ko ci làmb c'est à saluer mais na def ndànk na xam ñan la ko seqal mi li làmb dañu xaw a doy waar na ànd ak ay magi promoteur am ñu wan ko yoon wi bu mu ànd ak ay businessman moom it bu mu def làmb ji business na ko def passion en tank doomu sénégalais ànd ak ñoo xam ne ce sont des passionnés de la lutte ñu mën ko orienter investissement mu xam fi mu koy def fan la mënoo jël combat boo ñaari mbër yoo xam dañoo ci cent mille francs la ñu waroon bëri ñëw fay leen ku nekk dix millions bu subaa bu échecgee wala mu perte ña ko digal ñoo ko teg ba bu subaa dootul bëgg ñëwaat donc nañ ko teg ci yoon wi. Moura xale la jeune la ci réew mi la bokk Sénégal la ndeyam Sénégal la baayam Sénégal la donc bu ñëwee ci làmb c'est un plus boo xamante ne que ñun waa làmb dañ koy dañ koy dañ koy tàccu rek ñaanal ko aussi bu jaree accompagnement ñu accompagner ko ci kaw bu defee nii lii nga xam ne moom la Luc def eh, li mu tëkk ci combat bari na yoo xam ne dafa soxla communication mm-hmm. léegi nag. promoteur yi ñëpp jàpp nañu ku ci nekk war nga am site web mais ñoom duggoon jàpp ne que mën nañu seen bopp seen seen communication bi ñu doxalee xam nañ ne que effectivement les choses ne se donc ñoom promotion promotion làmb la ñu xam ak promo ak ak tëggay mbër ñun nous sommes des professionnels même des professionnels de l' information nañu bàyyi ñu jaay leen seen événement ñu ànd ci lañu war a ànd du yàq dara du yàq dara jërëjëf Bour maa lay jaajëfal faal bi amul nelaw jógal Modou Anta Modou Anta borom RNB TV wala wala sunu lamb TV kaay si leen dugg si sama gaay yi. Hmm? maa hmm. jàmba. waaye sant borom Tuubaa rek. Hmm. dalu waaw dalu ñëw bi tey fii ci Nianing. waaw yàlla rek. ñëw bi mu wax dëgg yàlla mettiwul. parce que yaakaar naa mënoon nañoo ñëwee ci suñu ay moyens bopp ko mais malheureusement promoteur bi wax dëgg yàlla comprendre nañu te aussi tamit bëgg na waa presse bi. lig ñu ko laay. dëgg yàlla moom ñun ku ñu nekkal si ker gi ñu nekkal la si naaj wi. te wax dëgg yàlla nit moom ni mu la jàpp rek noonu nga koy jàppe parce que olof yi dañ ne koo xamul ni mu lay def. na na ko def a tax. te lig ñu moom wax dëgg yàlla moom. ñun presse bi yëpp dañ koy ñaanal lu muy dugg lu nekk mu am si réussite total parce que wax dëgg yàlla bëgg na nañu teg nañu suñ place xam na nañu ñooy kan. ji li làmb ji xatul xol yi moo xat. walaay lancé fii événement bu nekk am na fi. Aline Petit Mbaye mi ngi fi woon. ma jumul moom moo tëggoon Bombardier ak kan Tyson est-ce que tëggu ko woon. 25 décembre 2002. te instant yi yaakaar naa nekkatu fi. suñu papa booy bambara mi ngi foo nekkatu fi. suñ papa kii nu mu tuddati Balla Gaye mi ngi fi woon nekkatu fi kon yaakaar naa làmb ji xatul xol yi moo xat nañu ubbi xol yi ñu jéem a yaatal làmb ji kenn ku nekk ñëw jël fi lii sa wërsëg. gis nga àdduna bi boo fi nekkee xatal sa bopp yaakaar naa ne li nga bëgg doo ko am. jàmm bu nekk sa xol mooy sa mbedd saa boo xëyee si ngay jaar boo yéenee nit ñi jàmm dinga am jàmm boo yéenewul nit ñi jàmm doo am jàmm. parce yaakaar naa jàmm moom si la lépp xaj. lu dul jàmm jàmm ko gën groupe ba yaakaar naa noonu la tudd. Luc Nicolaï nag wax dëgg yàlla dañ koy sant di ko gërëm. parce que bu ko neexoon mën na invité presse bi yëpp te bu ñu invité woon dañuy jël suñu ay mooy bopp paas ñëw. ba pare paas dellu. ndax nañ koo def. mais yaakaar naa yow gis nga fi ñu daje. Mhm. te oto moo la jël si. Mhm. presse bi yëpp mu jox leen oto. jox leen fu nu dal tey kenn ku nekk yaa ngi ko fekkee fa mu dal hmm. naas mi ngi tëdd di dallu naas te coow jibul wax dëgg yàlla ñu koy sant di ko gërëm hmm. di ko wax ne fi mu ko teg daal foofu la boo gisee bi mu nekkee si ay jafe-jafe axlu làmb hmm. monde de la lutte ñëpp taxaw di ko ñaanal parce que lim ñu jëf ñu ji la gis nga nit moom saa boo ko jiyee benn affaire du ko fàtte gor bu nekk gor la parce que yàgg na taxaw presse fu ne saa bu tëggee làmb promoteurs yi ñëpp ku ci jalousie wul ku nekk da ngay kontaan Mhm. parce que mooy borom événement moo man làmb te xam na ni muy doxalee làmb coow li mooy bëri rek signature yi am coow yooyu yëpp ay tojtal la mais làmb mënoo fexe ba du neex te làmb ji bu jàllee mënoo fexe ba duñ ko waxtaane combat bu waaye ci la coow lay commencé. ci loolu la ñuy ñëw tey yan sampion nga séentu ni dinañ wàcc si ci 3 millions yi litre simple. lit euh, lit cent bi waaw champion yi nga xamante bi ne ragalun rek xam nga jiili làmb ji nag dafa bëri ay comme rëg-rëg essant yi nekkatu fi parce am na si ñoo xamante bi nii rëg-rëg bu takkee duñ ñëw de buñ déggee ne rëg-rëg a ngi fii dañuy jaari fële buñ déggee ne rëg-rëg a ngi adré dañuy dem Ibamar wala ñu dem teere gaal gi wala ñu ne maa ngi woon àll ba wala sama biir day metti wala tey taxawuma yooyu amul dara gis nga jiili daan du rey làmb nii buñ la ci daanee du daan rey du daan bañ a ñibbi hmm. defet bi du taq fenn tey da ngay nit da ngay ñëw nga pare sëriñ bi na la demal lamb ji leer na nañ yow yaay koy jël yaay jël tournoi bi sëriñ bi la assuré lamb ji nga ñëw daanu premier tour. kee jekk saay nelaw ba yeew mu ne man de damaa war a dem lamb ja daax sama wërsëg woowul sëriñ woowul kenn ñëw finaalu kon yaakaar naa yàlla rek moo fi nekk ragal gi amul sens tëddi nelaw bi yaakaar naa ne pertement la. kan nga séntu ni tey dina ñëw ci ponkal yi boo ma la doon lima sa waaw si ponkal yi comme nañ ko. François Gomis aussi tamit séntu nañ ko ay ñoom du saane Cheikh Tidiane ñaa Ibou Ndiaye Diof yor aussi tamit pour quoi pas Pakala mi nga xam ne côté bi Petite Côte bii la dëkk. pourquoi pas ki nga xamante bi nii mooy Sélémélé aussi tamit ñu ngi ko fiy séntu ñu ngi fiy dégg ki nga xam ne mooy Bouba assurance tamit. fii la dëkk parce que yaakaar naa waa dakaar waru ñoo jógee ñëw bii ba fa seen côté bii nii ñanin lañ nekk noonu. ba pare di fi jël lamb di ko yóbbu. te ay champion nekk si biir kii bi Jordan tamit mi ngi woon fii di mburum fii Jordan mi ngi fi. pakala mi ngi fi buuba assurance mi ngi fi ak kanaat bari na ñu nekk fii si mbuur mais nag séntu nañ fi ñoo ñëpp ay ñoom aada booy bowal séntu nañ fi ay ñoom Toubacouta ay ñoom Doussane ay bandi 40 booy yëngal mbappadi ay soox soox gaa yëpp ay Pape Ngaan gaa yëpp séntu nañ leen fii normalement war nañoo mën a ñëw moom franchement. waaw ay ñoom tas yaakaar rek booy yëpp dañuy ñëw compétir. lamb ji 3 millions du caaxaan ji boo ma ko fa nga xam ne du caaxaan. bu fi doole ji nekkoon sax ma takk. <laughs> bari sëñ Bamba. bilaay. jërëjëf ba lay jaajëfal bu baax a baax. maa doole ji moo fi nekkul. non xam rek mooy lim olof yi dañ ne loo bañ ku la ëpp doole la ko tegut tey fi mu ne nii fit baax na torop mais loo bañ ku la ëpp doole la ko tegul jili boo ma ëppee doole boo ma jàppee rek def ma lu ma bëggul billaahi buy mhm. sawaay mun a gis nga est xam nga ne actuellement nii Ama Baldé ak Modou Lo ñoom ñaar ku ci nekk ma ngay waaj jëm si ñan Ama Modou dañuy ñëw waaw dugg Ama Baldé Nianing rek. <laughs> wax dëgg yàlla promoteur bi moom sa waay sant yi na yëpp ñaanal. Sénégal yeeg ñëpp nañ ko ñaanal xam moo tax gis nga day am ñoo xamante bi nii maanaam dañuy nekk ci ay stress dañuy nekk si loo xam seen xol day naqari mais monde de la lutte moo nekk loo xamante bi ni day fàttaloo nit lu bëri. muy lutte avec frappe bi di làmb suñu sport national bi tey bi temps yii passé yaa ngi déggoon Covid 19 bi fi nekkan coolu Adji Sarr ak biñ demee ba bàyyi làmb be yu demee népp 4 avril bi gis nga biñ koy publicité yu demee noonu ñu ciy remercier de passage suñu papa Gaston nga gis ñu fàtte yëpp mais entre Ama Baldé ak Modou Lo ne la. parce que ñaari mbëri non li leen boole dafa bëri jiili yaa ma ko gën a xam. loolu moom doo ci nag bi xajandoowul ci ci ni mais li ma ciy wax mooy que rek supporters yi nan ànd ak discipline ànd ak dal ànd ak yar ak teggin ak ku man di doon supporteru lutte san fra bi sax amuñu problème mais lutte avec fra bi ñoo am problème. parce que jiili tey ama bu ñëwee supporters yi Modou gaañ ko moodu dootul am ku mu bëreel Modou bu ñëwee supporters yi ama yi gaañ ko ama dootul am ku mu mën a bëreel kon nañ jéem a wàcce xol yi xam nga ànd ak discipline ñu def ko ci yar ak teggin bu ko defee ba àgg ca jour sa kële meer gañ jërëjëf Modou Anta moo koy jaajëfal bu baax mbokk yi kon ñu leen di jaajëfalaat ba ci kanam léegi incha allah le 27. le 27 juin Sané moo ma tudde drapeau arène nationale ba sëñ baa Mbacké. en ligne bi lañ ko tuddee. dina mel ni caayu ji amul ñor. ok loolu nu mu bu dog da lay nural xam nga mag buy naan ndox mu tàng suukar saata ku bokk ci gétt gi naan ci meew maa leen di yeewoo yéen ñëpp incha allah. rendez le 27 incha allah arène nationale. ci diggante Saara ak euh, boy bi nga xam ne mooy Arsenal di ci sant Sané bu baax a baax di wax ne gars yi képp koo xamante bi ni dégg na kàddu gi rek mooy sa woote parce que réew mi dafa yaatu te mënoo ko wax ñëpp jaajëf ji